ci ko sama benn taalibe daf maa woo léegi mu ne ci coronavirus xaw ma pas mu ne ma laaj la ba xam lan nga xam ci loolu ndax feebar bi dafa bari léegi coronavirus moo ngi jóge ba Chine feebar boobu noonu defe naa dugg na itali dugg na sax Nigéria dégg na am na benn Nigérien bu ko am léegi nag ñu bëgg a xam yéen lan ngeen xam ci loolu parce que yéen moom da ngeen garaaw coronavirus ah coronavirus ba xam xam nga ci dara wala xamoo ci dara su ma benn taalibe macha allah mu ñi ñuy seetaan en direct léegi nag euh, moom jinne bi ma laaj ko ba xam feebar. ah ñëw fi. Ah, ñëw fi. nee na feebar bi ñëw fi waaye nag bu gars yi tëjul frontière yi dina ñëw ah parce que dugg na Nigéria ñëwagu fi. est-ce que feebar boobu noonu am na solution. coronavirus am na solution. dina am. waaw nee na choléra virus naka la coronavirus nee na solution dina am waaw nee na solution dina am. dina <laughs> jinne bi nee na feebar bi dina am solution léegi nag ñun dinañ ah. mu def ñaan. nga sànni ko ci àddina bi yëpp. waaw suñ borom nangul la ko. so. waa bi nee na ma def ñaan sànni ko ci àdduna bi yëpp suñu borom nangul ma ko. àddina borom nangul la ko ñu tasaareel la ko ñëpp mucc. na nga dem si géej gi. nga taxaw fa. nga ñaan. nga ñaan. ñaanal bu baax ñaanal bu baax cerm taxawal ci géej gi nga ñaan nga taxaw ñaan sa boroom balaa bii balaa la de li nga ma laaj léegi coronavirus balaa la balaa de booy ñaan dangay dem ba sa géej ga nga taxaw nga ñaan ñaay ñaan di nga ñaan bay lox nga suñ boroom mu yemale fi jàngoro ji te mu jox leen li koy faj ñaanal de Thierno ñaanal hmm. ñaanal de ah, loolu moom mu ne ñu ñaan waaw dinañ dem ñaanal bul xaar dinañ dem géej ñu ñaan xaar taxaw dinañ géej ñu ñaan suñ borom suñ borom yemale feebar bi yàlla parce que nag ah coronavirus nag moom dugg na Nigéria Nigéria ak Sénégal benn la sorante wuñu léegi nag moom dinañ dem géej taxaw ñaan suñ borom ñaan suñ borom ci kattan suñu suñu borom ñaan yàlla yemale feebar bi yàlla may ñu solution pour ñu mën a am euh, maanaam ñu mën a am garab bi ñu mën a am saafara si waaw ah allah kon vraiment. Euh, di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi ndax jullit ñaan la te suñu borom am na ñi nga xamante bu ñu ñaanee suñu borom day nangu ñaan bi da koy def mégat ma